dalee nag jaamu seen Sene Production ñu ñëwaat ak yéen seen série euh, Jeux de Dames mun nañu nag série bu bees la bi nga xamante ne waa Marodi ñoo ko lancé mais nag sama gars yi série bi nu mu introduire rek dafa garaaw dafa énorme les gars premier succès bi mu am rek mooy nag li mu gagné si nombre de spectateurs moom moo bëri car macha allah ba tax na nag loolu rek nekkul point yi mais nag plutôt qualité d'image bi nga xamante ne moom la série bi àndal rek c'est top ba pare nag euh, histoire bi nga xamante ne dafa nekk histoire bu intéressante histoire bu am doole ne nag euh, ñu bëri ñoo ngi yàkkamti lii di euh, waa yi ñu daal di euh, développé boobu lay concept boobu lay nag histoire ñu xool nag fan lay terminer sama gaay lan mooy histoire bi muy une jeune femme une jeune fii bi nga xamante ne nag dafa am ñaari option si li nga xamante ne moo nekk vie te moom nag benn rek la war a choisir pour nag mu daal di continuer vie am les dañ ko tegal carrière ak li nga xamante ne moo nekk mariage sama gaay yi nag pour l'instant carrière la nekk di topp jàngam la nekk di topp ndax rêvam mooy mu devenir une grande informaticienne moo tax nag sama gars euh, dina métti trop dina nek benn défi bi nga xamante ne moom lay xale bu jigéen boobu lay dina ko daal di yow subir ba tax na nag pour l'instant commencé na nag di subir ay euh, li nga xamante ne moo nekk difficulté ndax mënul génn tout tranquille mënul génn sans ñu agressé ko wala sans ñu koy euh, perturber wala nag ñu koy daal di ruube si yoon bi ngir lan ngir nag yoon bu baax bi nga xamante ne moom la jël ak melokaanam ak jëfin bi nga xamante ne moom la nekk di doxal ak yar bi àndal loolu rek ba tax na nag euh, population bi daal dina koy eenal si loolu noonu mais nag sama gars yi euh, un jour nag euh, papam décidé ne da koy maye ngir nag coow bi jeex mais nag foofu la problème bi yëpp commencé foofu la histoire bi jógee que ni carrément moom bëggul mariage dafa bëgg a topp carrière am te sama gars yi il a parfaitement raison ndax soo xoolee nag depuis le début la ni moom carrière la choisir pas mariage ndax soo xoolee dafa bëgg accomplir des grands projets des grands genre de choses yi nga xamante ne si vieux moom la bëgg accomplir mais nag sama gars yi euh, ngeen yaakaar ne nag moom mi lay xale bu jigéen boobu noonu yoon bi nga xamante ne moom la jël ndaxam bu doon yéen yoon boobu ngeen di jël wala nag plutôt da ngeen di choisir mariage te tamit na ngeen joxe seen avis pourquoi ngeen di choisir yoon bi nga xamante ne la jël en laissant le mariage derrière vous pour nag euh, jël sa yoonu bopp pour jël sa carrière dund ko ba mu daal jeex ba tax na dina bëri ay défi yi nga xamante képp ku jël sa carrière rek nekk moom ngay rencontré yaakaar naa moom lee xale bu jigéen boobu noonu dina ko rencontré te moom nag pare na pour dund bépp nag défi bi nga xamante ne dina ko daal di jot si yoon bi moo tax na sama gars yi dañ leen di les ngeen seetaan série bi pour l'instant mu ngi dawal ay épisode ngeen gën comprendre concept série bi ak nu muy demee su ko defee ñu dajewaat si li nga te moo nekk analyse yi jaa ngeen jëf